ñoo ngi leen di yow di leen jaajëfal yéen ñi suivre seen bi di Leewtoo TV. Eh, léegi man. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum kuy mbis dama doon nelaw yeewu ñu yónnee ma li nga posté ci Wally Seck. Queen maa ngi jégalu de waaye conseil dara nga ci amul yow boo demee bay bind lii ci Wally Seck ma xam ne wéroo wutal ay conseil Wally Seck dafa am classe ci loom classe dañ koy woo yow ku la wayloo sa ole boobu noonu damaa bëgg nga jël leetar yi A B D e, ba sedd bi nga ñawaat ko ba mu jekk boole ko pakat carton na ko dugal ko sa tuun gi dégg nga. au lait bi neexul gars yi dañ la doon jaay rek naan la yaa nga duggee ci wàllu sek nga yàq amee man dinaa la woo paccal wen ak wane taat koyu joueurs yi moom mënoo ci ndax gars yi xanaa nga def concert gratuit woote Bambali Sadio Mané Bambali ñoo ña fa nekk ñoo la gën a soxla koyam bi ndax penalty la dugal lu toll na coupe d'Afrique nga assuré bii man gaw ma ne di nga koy de muñal rek muñal concert ba moom amu fa place buñ la